asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram waaye nag laataa loolee ñu ngi leen di jégalu bu baax baax ci ñaari fan yi nga xamante ci ne toog nañu ko jotoo leen benn information li ko waral moo ne nag dañoo newoon ci liggéey bi rek nekkoon nag ci mbir yi loole nag moo waral landi ba tey jii ñu dal di forfait ñoo am benn temps ngir dugal vidéo waaye nag loolee ñoo ngi koy jégalu waaye nag laataa loolee lépp nag kuy gën ci paas bi te abonné go dañu lay ñaan nga dal bi loolee nag mooy waral vidéo ñu dugal lekk YouTube dal di la koy envoyé waaye nag ngeen di def commentaire tey aimé loolee it dina dooleel seen bi groupe WhatsApp bi nag fees na waaye lancé nañ deuxième groupe bi ku ci bëgg bokk rek sa commentaire yi ci ngay def sa numéro téléphone ngir mën dugg ci groupe bi dañu koy doore nag ci doomu Sénégal bi li di Malang Sarr Chelsea ba tey ji rek mi ngi wax diggante Chelsea ak AS Monaco rawatina nag agent bu gone gile di Malick Sarr moom doomu bi nga xamante ci nii nag AS Monaco na lool pour dal di koy indi foofee ca championnat bu France ca Ligue 1 nag waxtaan wa sori na lool ci diggante Sénégal bi lee di Malick Sarr ak waa AS Monaco ba tey ji doomu Sénégal yi du ñu leen bàyyi moom kii de nag di Abdou doomu Sénégal ne ca championnat bu France nekk fa nga xamante ci nii nag moom moo di Paris Saint-Germain xam ngeen na nag waa Paris kutsu ba fay doogu ñëw dafa contrôle ci gone gile nag di Abdou Diallo loolee nag moo waral gone gi ay mbiram xaw a taggateeme lool ba xam

Chelsea waaye nag li gën a wér te wër mooy doomu Sénégal bi di Abdou Diallo jege na lool pour signer contrat foofee nag mooy a gaawee doomu Sénégal yi nag duñu leen bàyyi moom kili di bu ne nag dana xaw suul ab kaneelam te dana tax club yu mag yi duñu ko mën a jënd moom nag mu doon lànk loole waaye jamono ji nag may wax yéen ñële nga xamante ci ni ñoom ñoo di waa Villarreal boobu laaja la ñuy gënte moo di jaay ko wala it ñu dal di ko fay téye loolee nag ñoom ñii di di waayo Villarreal nekk ci championnat Espagne ña nga cay ba xam ban décision lañ ci war a jël waaye nag lépp lu ci moo xam dañu koy aale moo xam gone ngay lànk lépp du leen ci raw ak Le Monde Sportif dañu koy doone nag kile di Paul Pogba nekk foofee ca biir Juventus ci championnat Italie ba moom nag xam ngeen ne dafa ami woon ab blessé ci entraînement ba nag la ko dal di ami woon loolee nag xaxoon na tiital ñu bëri ñii naan dina football coupe du monde bi ak France ñii naan du football coupe du monde bi ak France waaye opéré waaye moom nag lànk na ba léegi dañu koy faj comme ay piqûre rek waaye nag li gën a wér weer wóole moom nag nee noppi wan pour duggaat ci entraînement bi di cukki-cukki ci kanam tuuti nag mu nekk ci terrain yi kon nag am nañu yaakaar ne moom mi la di Paul Pogba coupe du monde bay amee ca Qatar nee kat kenn ko ko wan ci télé mbaa koy déglu ci rajo da koy seetaane foofu ca biir Qatar dem nag football moom kii nag di Paul Pogba dañuy Pays-Bas bile di Memphis Depay nekk ca Barcelone Barcelone nag jëlee woon ko ca Lyon kële do Ronald Koeman waaye xam ngeen ne Xavi Hernandez joueur yi mu kontaan waaye joueur yi mu bëgg ñu dal ñëw ca Barcelone ak joueur yi mu bëgg ñu resté ca Barcelone ak joueur yi mu bëgg nekk ca Barcelone kële di Memphis Depay da ca bokkul moom nag Barcelone proposé woon ngir mu quitté fa moom nag xawlu woon ko nangu waaye nag Barcelone jamono ji nag maanaam di waa Barcelone gone gi nangul na leen kat dal ne léegi nangu na dal di foofee ca biir Barcelone ngir mën a wutali beneen club am na nag club bu ci nekk di wax muy Sifantis te waa Sifantis am nañu yaakaar ne lool a ki nga xamante ci nii moom moo di Memphis Depay ndax moom gone di Memphis Depay moom jege na lool nag pour signer contrat foofee ca biir Sifantis dañuy wutali naka ñeenti joueur wala ñetti joueur yi nga xamante ni Barcelone mën nañu ne saison bi kan ñoom ñoo ñoo leen ci des ngir ñu man ko recruter bu nu paree nag tëj mercato bi ba saison 2023 Barcelone nag jamono ji mi ngi ci diggante Marcos Alonso ak kii di Azpilicueta moom nag dafa bëgg a jël benn offre rek jibbal ko Chelsea ngir Chelsea mën leen jaay kii di nga xamante ci ne moom moo di Azpilicueta ak kii di Marcos Alonso bu dee nag kii di Bernardo Silva mën nañu ne kat waxtaanoo nar na yemu de li ko waral moo di kat Barcelone offre bi ñu bëgg bëgg a yëkkati ngir yóbbul ko ñi di waa Manchester ko bañal waaye nag Azpilicueta tax ak kii di Marcos ñoom di waa bëgg jël benn offre rek yóbbandoo ko ngir le monde ñëw kon nag dañu leen di jox dig daje ba ci kanam tuuti ak beneen vidéo incha allah di jégalu nag retard bi ngir dugalun ay vidéo loolee nag ñoo ngi koy jégalu bu baax a baax waaye nag da ngeen kontaan jaa ngeen jëf